ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw ñu ngi lay ziare bu baax a baax yàlla na yàlla nangu neen dafa coono yi ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla na sama borom xeb dolli yàlla ama amin wa ah amaat mbégte bi ñu la woowaatee nga mën ñëw wuyu waat ba ñu mën a jokkoo waat ak yow waaw ndax wax dëgg yàlla gisoon nañ ni fan yi waxoon nga génnoon lu jokkoo woon nañu yow ñaari yoon. waaw ci wàllu qualification wu équipe nationale bu Sénégal bi ci wàllu coupe du monde bi. dëgg la biñ te laajee da nga ni woon fi mu toll nii metti na jaxasoon na loolu waaye lu mën a xew mooy Sénégal moom dina dina qualifié. Mm-hmm. alhamdulilah rabil alamin qualification bi am na ban gis-gis nga ci am ak sa xalaat bi ci njëkk. waaw gis-gis bi mooy li waxoon rek. Mm-hmm. xam nga ñun nu ma ko waxoon ci coupe d'Afrique ba fa muy tàmbali. Mhm. le trois janvier mhm. waxoon naa ay wax. Mhm. wax leen ma su Sénégal score bi ni muy deme mi ngi ci internet bi mi ngi fi yëpp am xam fu waay dugg. ba ci TikTok bi loo alalu Serigne Saliou. wala Kiki TV ci YouTube bi. wala Salam TV ci YouTube bi. Mhm. yëpp da ko mën a gis. dëgg la nga xam ne defoon naa ko avant loolu wax ci li ma ciy wax. Mhm. la ma leen waxoon naa leen waxaat waxoon naa leen Sénégal day qualifié. Sénégal France incha allah bu soobee yàlla day ñëw. Mhm. yàgg na wax naa leen ko loolu ba ma koy wax du tey. dëgg la te ko woon fenn fudul. ndax toujours ni ci réew mi la ñu bokk mhm. te doon doomi réew mi mhm. te sëriñ dafa am fu mu toll ci jamono foo xam ne yàquwut mhm. waaye ñenn ñi dañ ciy dugal loo xam ne bokkul xam nga gis ngeen fi ñu bari di wax danañ qualifié danañ jël coupe xam nga loolu yomb na mën ngaa sol sa garaam bu bu teg sa coppade sax wax loolu kenn xamul foo dëkk nga def say numéro na yaay sëriñ jiw waaye li ëpp solo bu ñuy wax mooy nañ gën a wax score bi man dama leen a wax score bu ne li Sénégal di dóor ak li muy encaissé ba suñu borom ñu sàngul ma laan sutura yëpp demee noonu yaakaar naa noonu la demee waaw loolu rek moo ci sunu jàng sunu xalaat yàlla sàng ma laa lim sutur ba lépp am. alhamdulilah euh, euh, ni nga ko waxee léegi de wax dëgg yàlla euh, depuis le 3 janvier ba léegi yaa ngi ci doon wax ñu ngi la ci doon topp ni nga ko waxee léegi ci Salam Vision waaye itam ci Kiki TV ba ci TikTok bi topp nañ la ci lu bëri bëri loolu bokk na ci li tax li sabab sax tey jii ñu boobu ba léegi tamit ñu di la woo téléphone di jokkoo ak yow ci loolu bër ci démb woon Ndiaye rek gis nañ bi bindi Sénégal di football fii ci Diamniadio bi ma la wooloo da nga ne ma maa ngi nii daanaka ci biir buntu stade bi ñu gis la tamit ci biir stade bi nga nga nga dugg ci biir stade bi laata match bee tàmbali sotti say mbir def say yëf tamit euh, lu lu lu waraloon lu sababoon loolu tam. waaw xam nga doomi réew mi lan même bu dul def fa dara sax pour mhm. ñaan ñu gagné am nañ sañ-sañ ngay droit bi dëgg la ndax stade bi ñoo ko moom doomi réew mi lan dëgg la comme ni nga ko waxee léegi ñu bari dañuy bëgg a topp vidéo yow ko waxee woon mhm. ngeen baal ma a mhm. may wax yu bari nga dem ci Salam Vision Salam Vision la yu bëree bëri ñu dem di ko ci yóbbu Salam Vision am na TikTok am na YouTube am na télé internet boo wëree fépp yu bëri dama ko wax fa lay dugg baa ci ki TV dëgg la wàllu alali Serigne Saliou ci TikTok bare bari foofu lay dellu ba ci ma waxoon yëpp koo bëgg a xam foofu ngay dem. dëgg la waaw li taxoon ñu demoon ci yooyu yëpp rek mooy doomu réew mi naan stade ba ñoo ko moom. Mm-hmm. waxuma la Sénégal gañ Sénégal jël ndam waaye am nañ droit ñaan ci réew jàmm. Mm-hmm. ndax waxoon naa dana may plaisir. ñi amoon numéro bi gis nañ may sati ko avant loolu te gis nga li ci xew. dëgg la ak ñoo xam ne ñaan ñàkk nañ ci seen i bakkan ñu ngi leen koy jaare. macha métti nag ci bu ñu demoon ba soixante minutes. Hmm. Sénégal dugalul rek maam leneen maa xew. xam nga Sénégal ak ni mu mel ak ni mu bëggee ndam. wallaay xale yi booba seen yaram tàng na te mën nañoo yàq terrain bi yàq leneen fii te mën na faju. dëgg la maanaam yooyu yëpp bu ñu koy def même bu dul gañee sax war nañ faa ñaan jàmm. Hmm. parce que suñuy doom ña nga fa suñuy taalibe ña nga fa suñuy rakk ña nga fa suñuy nawle ña fa. wallaahi wóor bu ñu wane image Sénégal ñu wane lu ba hmm. loolu rek moo waraloon gën a taxawu pour demee noonu. rek ñu def fa ñaan suñu borom may ñu ñu ñaan yàlla mu may ñu ay ndami ndam ci réew mi jàmm ñu fiy ñaan jàmm mm-hmm. jàmm rek lan doon sàkku ak di ko ñaan yàlla mm-hmm. mooy ñu am ndam suñu borom suturaal ñu ci loolu la rek mm-hmm. macha allah mu doon lu am solo ni nga ko waxee euh, beneen question bi ma ci jaaxal mooy fi ne da ni woon gannaaw bu Sénégal qualifié euh, coupe du monde bi incha allah rabbi Sénégal ak France danañ dajewaat ñu gis ni tam suba la tirage yi waaye poule bi Sénégal nekk moom Sénégal bokk moom defe naa ni mooy poule 3 bi ban a qualifié dajewaatee ak France tam ci biir poule boobu noonu. waaw xam nga dañoo tirage nga ne. tirage bi defe naa àjjuma la suba. ci kàttanu yàlla waaw poule bu mu bokk. poule bi mu bokk mooy poule 3 bi te poule boobu defe naa France bokku ci. waaw léegi ak lu mën di xew. Mhm. wax naa leen na leen incha allah bu soobee yàlla ñu ne France danañ daje. Mhm. loolu wax naa ko yoon yoon dama koy répété di wax. Mhm. poul bu ñu bekku poul bu métti lay doon waaye du am problème. Mhm. Euh, loolu danaa ci génn wax bu gënee jege. waxaat leen score yi ni muy demee ak li Sénégal di dóor. ak fan cay yegg incha allah. am na yéenay jël coupe de monde bi te am nañ ci yaakaar. waaye mënu ko ma cee sori di wax ndax coupe du monde des na. te lu ne xaj na ci diggante bi te dinañ ñaan suñu borom may ñu wér ñu fekkee ko te bañ ña dogalee ñëpp ñaanal ñu ñu fekkee ko te man ko total ko mm-hmm. li ñu amee ñaan yàlla bu suturaal ñu ba jël coupe d'Afrique mm-hmm. bay ñaan yàlla qualifié coupe du monde dana ñaan yàlla noonu ba gagné coupe du monde incha allah bu soobee yàlla te bu boobaa tamit bu gënee jege dana génnaat comme ni may teel a defee mm-hmm. am na bu desee un mois danaa leen wax score yi ni mu demee sec morceau incha te danañ fexe ba lëndloon deux mille deux ci Sénégal ci ambiance ci footballu réew bii mu ñëw moo gën a dàq. Hmm. te la ñu dundoon deux mille deux incha allah danañ dundaa lu ko raw ci mbégte ci deux mille vingt deux bi bu neexee yàlla. comme kan boobu rek moo ñëwaat te bii. Hmm. gëm naa ne am naa yaakaar suñu borom dañu ñu suturaal fekkee ko te man ko te tal. Hmm. buñ ko fekkee man ko te tal ko rek incha rabbi maa leen ko di coupe du monde bi danaa ko di Sénégal bu neexee yàlla. incha allahu rabbi yal na yàlla sama borom dégg kàddu yi te te boole ci toftal ci ak ak topp ak ak nangu tam fi ne ba loolu daal di am ndax boo loolu moom xam naa ne boo amee moom loolu tubaarkàlla dana am lu mu def ci réew mi mais sëñ Lo beneen question bi ma bëgg a laaj mooy est ce que euh, ci ci ci ci ci baatin ci yéen ñi nga xam da ngeen di fanaan ci kurus di fanaan ci turu yàlla est ce que tey jii yëgul leen ni tey ji Sénégal suñu borom da koo boole ci xarnu ren bi xarnu boo xam ne tey ji ren ji Sénégal daf ci war a doon révélation tey ji maanaam waa xam nga àdduna dafa am nu muy doxe mm-hmm. euh, chaque ak at mu ne ak li ciy xew suñu borom a xam. Mm-hmm. mais tey bu du dara muy jàmm ji. Mhm. bu du dara su ne ku ne xam ne ne Sénégal loolu jullit la. Mhm. ku ne xam ne ne ñi fi nekk ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay muy chrétien yi muy ki nga bokkul diine ki nga bokkulul diine. wallaay ñëpp benn lan. Mhm. ñaan yëpp ñu jëmale ko ci lépp. Euh, bu du dara gis nga footballu Sénégal ni mel léegi xale yi bëgg nañ ko te ay ndaw lan. wallaay de euh, donte mi ngi wutag su leneen ak leneen am na ñoo xam ne bëgg nañ ko. parce que soo ko bañee sa doom baa soxna na ko bëggee. te bokk na a tax ñëpp war cee a jàpp nit ñi mooy ku ne gis nañ réew mi fan yéen ni métti tatar xaalis amul ci réew mi mhm. métti na corona bi fi jaar yeneen ak yeneen mhm. yu bëree bëri yoo xam ne toujours buy am ci réew rek day mën a dajale nit ñi mhm. jàmmu am connaissance am tey ñëw nga istaat ba nga demee istaat am nga ñoo fekk am na ñoo xamante ak ñoom siq nga ak ñoom jàmm si insensante ngeen ay numéro te pourtant mën naa jur lu ne loolu nag bu dul woon football ba du jàmm ja du nga ko mën a am réew surtout day baax ci histoire réew ñu def jarooro joom na jarooro jooju mënu ta rek ñu jël coupe Afrique. Hmm. ñu ngi la duñ dem coupe du monde du am sens. Hmm. parce que liñ lay fay boo qualifié coupe du monde liñ lay jox moo gën fukki yoon coupe d'Afrique. mais jiw gi rek ak mbégte gi ngeen doon xëccoog say morom ba am ko ndam loolu moo jar lu ne. ñu ne lan la muy Sénégal di fi hmm. jël derub Sénégal. boo demee bitim réew dañ lay respecté te tubaab yi tey ñoom gëmuñu ne bara ngay nekk grand joueur wala grand équipe nga bokk ci ñu jël coupe du monde. wala ngay ñëw coupe du monde wala jël ci yenn euh, yu mag yi. ay lu mel ne Ligue des champions wala yeneen yeneen. même ko jël day dara mhm. te bu dul dara toujours rek su ndaw ñi gën koo bëgg mhm. xale yi ci nekk doon doomu réew mi war mhm. nañoo ñaanal saa jamaane tey mu jël Ballon d'Or Edouard Mendy mu jël Ballon d'Or te tey ñoom ñëpp ñu ci buntu bopp parce que jël nañ Coupe d'Afrique jël Ligue des champions def lu tax seen équipe nationale di gagné ak boole résultat yi suñ borom di dogal muy jóge ci ñoom kon ñooñu tey dañ leen di poussé ba lu nekk rek ñoom ñu bañ koo ñàkk ñu fexe ba bu ñàkk Ligue des champions bii di ñëw. Mhm. incha allah bañ ba bu ñu ñàkk ñoom yeneen ak yeneen. Mhm. ngir na ñoom fu ñu amee ndam rek Sénégal moo am ndam. waaw man foofu rek laa ko teg ci ci réew mi. Mhm. jàpp na tamit mag ñu baax ñu fi nekk ñaan ak yàgg ñaan. ak yi fi xewoon yëpp at mi passé metti lool ci senegal yàq yeeg six jours yu dul jeex ak dëkk bi. ah yàlla na xaaral ma déggalee leen lii rek suñu borom di ñu kii ci lii rek ñuy dégg bu ko defee yooyu yëpp ñu ko man di fàtte day baax daal. macha allah moom solo ni nga ko waxee léegi mu mel ni gannaaw gannaaw nattub suñu borom moom fi li wolof di wax naan ku muñ di nga muñ gannaaw natt bi jàll na muy euh, balaa bi fi amoon ak yooyu kon fi ne daanaka lii moom xëy suñu borom moo ko toftal ci ginnaaw natt boobu noonu moo moo war a ñëw muy mbégte gi nga xam ne moom la ñu war a dund koon daal Mhm. macha allah mu mel ni tamit sëñ sëñ alalu alalu sëñ sa sëriñ Saliou question bi ma bëgg a laaj tudd nga ñaari joueurs yoo xam ne askan Sénégal yëpp ne nañ yow yaay seen sëriñ <laughs> loolu tam ban nga ci am kii di Edouard Mendy di meilleur Edouard Mendy bi ñu mooy le meilleur gardien du monde ak tey Sadio Mané mi nga xam ne tey ji mooy le meilleur joueur d'Afrique. waaw xam nga ñun. lu ne ñu ngi ñu koy ji ñu ngay ñaanal équipe nationale fédération bi yiw fee <laughs> euh, waxoon naa leen fii direct na leen uh-huh. ñun lu bari ñoruñu bu doon jëflanteeg nit amul solo ñu ne da di jëflanteeg nit équipe nationale am nañ ciy xarit mm-hmm. am na ñu ngi ciy déggante am nañ ciy xarit am na ci lu ne. Mhm. Euh, ñooñu ñëpp tey euh, ay sénégalais lañ te ñun bu ñu ñaan di ñaanal Sénégal suñu bopp lañ koy tàmbalee. ndax luñ leen ñaanal ñun noonu ko ñaanal ndax ñoo bokk réew mi fu ko amee ndam ñoo fa amee ndam. looloo taxoon sax bëri ñu doon wax ñu bëri ñoom ne xam na ne man di bii donga daara royal ay sama équipe. Mhm. waaye dama leen bu soñoon moo du dajeeg euh, Chelsea. Mhm. ndax xam naa ne Chelsea da koy dóor day toog. ndax équipe la man fu Sénégal di football rek. foofa laay faral. dëgg la waaye benn équipe laa am. moo tax boobu nag moom moom moom laay faral. Mhm. moom moom laa mu jël ndam loolu. yeneen ak yeneen mën a romb loolu Sadio Mané noonu laa bëgg mu demee noonu ba ñoom ñaar ñu dem ca final Ligue des champions ba sax. Mhm. yàlla mën na loolu. wallay ndeysaan. waaw macha allah mu doon lu am solo xanaa fi ne ni ma faral di def li may laaj saa su ne te doo ci bëgg a sori moom ndax du ma ko bàyyi ndax nee leen heure bu ma ko laajee gis ci gis ci gis ci mbégte eh, dama koy laajaat rek sa diggat ku tedd kooku waaw toujours li ma la ci wax rek li nga xam ne li nga baax le mooma <laughs> uh-huh. kooku uma fayam ndeysaan te lu ma baax la ci àdduna rek moom mm-hmm. waaw kooku moom si jour ma ne foofu laa yem mm-hmm. balaa yegg dara dañu ñëw ci seen télé bi incha allah ñu def ci palaato fekk yëpp jàll incha allah rabbi bu neexee yàlla incha allah bu waaye ni ko waxee daal suba la tirage bi mm-hmm. euh, suñ borom yàlla baax na euh, coupe du monde bi incha allah suñ borom danañu may ndam su gën a jege danañ ci wax mhm. nañu ñëpp ñaanal ma fekkee ko te man ko te tal ko te attan ko mhm. su ma ko defee incha allah coupe du monde bi dana ñëw Sénégal incha allah bu soobee suñu waaw loolu moom bu neexee yàlla incha allah ñi am lu ñuy sikki sàkk ak lu ñuy xel ñaar nañ fan nga leen jox dig daje ñi ñu mën la faa topp fi ne pour suivre mbooleem say génn ak say jël yi nga xam ne yaa ngi koy wax ci ci ci ci équipe nationale bi waaw li ma la ko waxee léegi mooy Salam Vision Vision mhm. Salam Vision euh, mu ngi ci YouTube bi. Mm-hmm. sama vidéo yu bari mi ngi fa. Mm-hmm. am nañ TikTok. Mm-hmm. sama vidéo yu bari euh, mi ngi fa. am nañ Facebook. sama vidéo yu bari mi ngi fa. dëgg la bu dee sama TikTok lu alalu Serigne Salim. moo ne ci internet bi boo ko tàppee mu ñëw. kasaalika euh, naka noonu yooyu rek la ñu am mhm. ci lu ñuy wax mbaa lu ñu ciy def rek mhm. fa lañ ci suñu programme fa la ne ak biir Kiki TV yi mhm. boo ko tàppee moom it YouTube da nga dugg gis vidéo yi ñu ci def la trois cent bi avant max bi ñu wax résultat yi yëpp ñu ngi demee boo ci duggee moom it dañu ko gisee comme noonu incha allah incha allah rabbi ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di ñaan sama borom taxawloo te gën a guddal fan wi kàddu gu mujj gi lan lay doon tey ci biir jotaay bi. waaw ñu di sant ñu ngi leen di gërëm di sant di ñaanal réew mi jàmm. Mm-hmm. di xale yi nga xam ne demoon nañ ca stade ba supporter gaynde yi. Mm-hmm. loolu mooy Sénégal. bokk ndey bokk baay yéenante jàmm. ndax mm-hmm. mbooloo mooy doole. ñoom it suy nañ loolu ñu ngi leen di jaajëfal. di gën a ñaan ci jàmm. di ko ñaanal mboolem jullit yëpp. ak kilifa diine yi di ñaan Cheikh Mamadou Muntaxa mu yàgg fi daal ak sëñ Cheikh Mbacke sëñ Salim ak njabootu maam Borom Touba gépp yéen ñu leen di sant di leen gërëm ndax waxtu wu ne mm-hmm. di ngeen ñu woo di ñu laaj mm-hmm. wala ngeen ñu woo ci yeneen ak yeneen ak yeneen ñu bare bari mm-hmm. di ñu woo ngir seen i jëm ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñu ngi leen sant baax di leen gërëm incha allah rabbi jërëjëf loo alalu sëriñ Saliou jox leen kon dig daje incha allahu rabbi ci Salam Vision Kiki TV ci TikTok bi ak loo alalu sëriñ Saliou ci jotaay yi nga xam dina ñëwaat ñu topp lépp tam mu jëm ci coupe du monde bi incha allah bu sori suñu borom. baax na jërëjëf jërëjëf. ci barkeb sayxi fàddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla Bienvenue